والصلاة نعم، والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جناو بني سانتا يالا جلس يونت في تد صلى الله عليه وسلم ما جي نويو مشي لمير اونورابل ديبوتي مير دي لي نويو ديلا سارغال ديلا جوخ سو واتواي با جوخال مو نويو يي ادجون سو بريفي بيغا خامني تي مو توغ بريفي مو امون نيت نيو واي دا ام غانت Euh, ak ki nga xam ne moo fi toogal euh, chef de l'état euh, ñëwaat nañu tey encore ñëwoon nañu keroog wax ci mbir mi li nga xam ne ni mu ñu ñore ak ni ñu si jaaxle ni ñu si tiite wax ak askan bi ñu xam ne mbir mii di mbir caaxaan du mbir caaxaan mbir bu sérieux Sénégal nag tàmmaa nañu lu mbir su ñëwee rek dañ koy jël à la te li nga xam ne day faat ay doomu aadama day rey ay doomu aadama rey na ay doomu aadama nit ñi teg ci seen bët di ko gis di ko dégg bis bu nekk jot na ñu jël ko au sérieux comme nag euh, médecin yi li ñu joxe ak li ñu wax euh, loolu mooy dimbali askan bi ba askan bi mën a mucc si jàngoro gi nga xam ne mooy coronavirus bii mooy euh, de produit yi di ko raxasu mooy garde distance yi Euh, mooy jël masque yi takk ko kenn ku nekk Sénégal sénégalais bu nekk war nga takk masque moo waral ñu xalaat ñu famille Thierno Djibril Ousmane ak euh, njaboot bi nga xam ne ñoo njabootee ñu dajalee masque yi yëpp comme ça ñu jël ko teg ko ci loxol monsieur le maire euh, monsieur le sous-préfet mu teg ko ci loxo monsieur le maire ndax ñu mën ko mën ko mën koo jox askan wi accompagner waat monsieur le prisident la république si li nga xam ne wax na ko. muy euh, ubbi école yi le 2 juin bi euh muy li nga xamné ne nit ñaa ci commencé commentaire nit ñaa ngi commencé wayé euh comme jël nañu dogal nañ ubbi école yi ñi nga xamné ño amé euh, euh classe examen yi ubbi ko donc loolu tamit ñu accompagner len ci mbir mi élève bu nekk mun a am maskam euh, ak professeur yi ak kat yi euh di ñaan monsieur le maire mom tam mu organiser école yi outal len ay produits Euh, yokkal leen ay masque ndax mu mën a organiser programme bi ndax xale yi suñu jàngee ndax lii di nga xam ne li nga xam ne mooy corona bi bañ a egg si foofu donc di di sargal monsieur le président de la république di ko ñaanal di ko accompagner si li nga xam ne euh, euh, jël na ko accompagne mesures yi nga xam ne yëpp jël na ko di woo Sénégal yi ñu ñëw it wàllu siwaat ci loolu képp ku jàppale président de la république na xam ne boppam la jàppale su président la république su fekkee su su muccee ñun ñëpp ñooy mucc kon nag dogal yi mu jël nañu ñaan yàlla dogal yooyu ànd ak amiin dogal yooyu euh, dimbali askan bi jàppale askan bi ba coronavirus bii euh, ñun ñu mucc si si jàmm di ñaan laat askan wi euh, koor gi ñu ngi si defe ñaareel ñaareel xaaj bi di ñaanal askan bi yëpp. yàlla jàppale leen yàlla dimbali ñu nang nangaluñu suñuy koor musal ñu si li nga xam ne mooy coronavirus bi encore monsieur le maire jërëjëf sa taxawaay rafet na si commune bi sa liggéey rafet na si commune bi rafet na lool di sargal suñu jigéen yi ku mel ni Adja Marie Wade taxawaay bu rafet ku mel ni euh, presse bi ñu ngi liggéey liggéey bu rafet ñu ngi taxaw taxawaay bu rafet ñu ngi gindi nit ñi ñu ngi xamal nit ñi saa su ne ñu ngi teg nit ñi si yoon di leen xamal lu xew si àdduna bi loolu lu am solo la docteur yi ah, ñun tamit ñu sargal leen ñaanal leen yàlla ndaxte seen temps yëpp jël nañ ko seen jaaxle yëpp jël nañ seen xam ak seen xarit yëpp jël nañ ko kon ñu jël en considération li nga xam ne jël nañ ko encore une fois sénégalais yi mooy na réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi baax na waaye réseaux sociaux mi ngi yàq mi ngi defar bu leen jël information bu nekk rek ngeen ne information boobu mooy dëgg lii virus la te gis ngeen ni mu def ci adduna bi gis naa ay information yu bari yenn yi fausse la yenn yi dëgg la yenn yi di dëgg kon nag na ñu xam lan la ñu siy jël ñu jël ko lu ñu si jël ñu bàyyi ko kon nag encore une fois yal na yàlla musal ñu ngi ñaan yàlla yàlla musal ñu si mbas mi nga xam ne lëmbel àddina bi yépp nañu jaamu yàlla nañu ñaan yàlla nañu tudd yàlla di woo xalif généraux yépp ñoom ñoom ku si nekk moom tamit ñu ñaan yàlla yàlla musal ñu si mbir mi ndaxte seen ñaan day nangu hasa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu